يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا très bien macha allah très bien wëppalaw <laughs> mbokk yi foofoo ngay toj de merguez bi de ngay wëndeelu ma nga ca mbaay mbaay ga de wëndeelu mbaay mbaay ajaratu mbaay mbaay foofoo ngay xalagu macha allah wala quwata illa billah mbokk yi mu ngi nii gaaw na lool lool lool macha allah sauté de merguez saf na woyof na te neex na voilà di leen wax rek nekk euh, video complète yaa ngi ci youtube bi macha allah di leen ñaan la baaraamu kaw sela la wi mu yéeg ci kaw moom mooy pouce bleu bi Euh, dégg nga maam la baaraamu suuf sele la bank ko rek bàyyi ko foofu mu ne jàpp fa njàmburam foofu daal di toj mbokk di leen wax ne na ngeen partager suñu yuubu yaaba yi Euh, incha allah ci kàttanu yàlla subaam jàmm ñu ñëwaat ak yéen euh, ci beneen génnukaay aywa na rees ak jàmm. ay bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi man la Mariétou fii ci saveur planétaire fas yéene dellusiwaat tey ci kàttanu yàlla incha allah di ko defee niñ ko baaxoo di defee mbokk di leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp macha allah di leen wàcc seen wàccuwaay euh, di leen ñaanal yàlla yu àddina ak àllaaxira ak njaboot géeg yëpp. voilà mbokk di wax na tey ba léegi macha allah euh, yéen a ma gën a xam ñu ngi nii ba léegi ci suñu ndogu yeeg ay xëdd fas yéene jàllaa ñoo rek ci yu sew sewaan yi nga xamante ne <laughs> macha allah euh, du la diisal lool lool lool lool ay euh, bismillah tey nag moom dañu fas yéene dellu cosaan tey ay merguez la ñu fas yéene sauté seen ngeen leen nele ay merguez lañu ñu voilà donc gis ngeen yi lañ ko bëgg a booleel fàttaliku cosaan gis ngeen nii suñu baguette moo nami bopp mburoo ngi nii ci wet gi. Euh, suñu frite ngi ne ñuy waajal donc daal di maye rek suñu sauté de merguez. Euh, boole kook suñu sauce rouge ni ko sama yaay doon waxe nan <laughs> merguez sauce rouge bien pimentée mais xamna ñun nak mom bien pimenté gi mom dañ koy bàyyi ba benen jamono rek aywa macha allah donc euh, pour suñu merguez bi sauté bi dañuy soxla merguez yaangi ngi nale ak touti soble rek la ci sanni li ñuy gis euh purée de euh, pepp la mooy bel pepp bi bel pepp mi ngi euh, poivron euh, manam fël Maroc bi mom lañu def purée voilà légui li nak ku un bëgg da nga dem ci boutique turque yi gis ngeen ko da fay concentré ba melni tomate concentrée mais c'est pas de la tomate concentrée voilà pepper pepper paste la patu kii la donc dafa amé caf ko bu neex tiafou salade yoy la yoré turque ya jaay voilà mon nekk ni Euh, lii suñu xorom la ak suñu poivre fii suñu cumin moo fi nekk fële ñu ngi fi ak suñu pure de tomate tomate concentré euh, tomate purée voilà donc pour éviter ma def tomate concentrée, bi loolu motax dama yem ci purée bi grelever couleur bi ak suñu euh, këf gi bu ñu vous suñu may muna a mayonnaise lañ ko fas à suñu frite ak ketchup baa ngi le lii suñu persil chinois le coriandre mom la haché rek buñu paré paree ko ci xep rek mu dal di gi rek ñu ko suñu <laughs> très voilà rapidement pour la version française ce soir incha euh, on va préparer des merguez voilà des merguez sautées euh, avec euh, des pommes frites, des pommes de terre frites, de la mayonnaise et un peu de ketchup. Alors là, on a une purée de tomates, euh, tomates fraîches, purée de tomates. Et ça, c'est une pâte de poivron. Voilà, et vous pouvez trouver ça dans les boutiques turques. Ouais. Et là, on a du sel, un peu de sel, du poivre. Et ça, c'est du cumin, juste pour épicer un peu un peu d'oignon que j'ai, comment on appelle ça encore, que j'ai ciselé. Et là, on a euh, du coriandre. Voilà, c'est du persil chinois. Quickly, the English version. Tonight, inshallah, I will be making merguez. Some people, they call it sausage. But here, let's just go with merguez. So I will give you the quick saute. Uh, and these are, those are the ingredients that we will need. I have here tomato puree. This is uh, pepper paste. And you guys can find it at the Turkish store or the Arabic store, you know. And it's very nice. It adds a nice flavor. And I took the mild one. This one is not spicy at all. It's just mild and, you know, give it a nice taste. A little bit of onion that I chop, chop, chop. Here we have salt, black pepper, a little bit of uh, cumin, cumin, uh, cumin uh, just to kick up a notch. And here we have coriander. Uh, how you call it again uh, cilantro that I chop chop chop too and at the end we will enjoy it with the uh, de la mayonnaise uh, how you call it mayonnaise and we have a little bit of ketchup and of course the french baguette to make our pain merguez and we have a little bit of french fry aywa aw oh, très bien macha allah so mbokk yi léegi fii la ñuy dooree dañuy teg poolu kese kese parce que bu ñu fàtte ne bi dafay niin ayo bismillah ñu teg ko ci nii rek bàyyi ko mu génne diwu merguez bi voilà juste comme ça so now we are uh, the merguez. We don't have to add oil or anything because most of the time the merguez it's kind of fat. So we just gonna cook it like this, high heat to release the fat that's on it. Voilà, et là, on va sauter les merguez rapidement et il faut pas ajouter de l'huile, juste comme ça parce que la plupart les merguez sont euh, gras. Voilà. aywa très bien léegi gis ngeen ni merguez yi xaw na ci tuuti rek léegi dañ koy may ay tuuti bën bën nii rek comme ça yëf yi daal di wiccaxu voilà mu bañ a exploser suñu kaw très bien voilà mu release ñamato yi ne ci biir gis ngeen nii mu ngi tiit si voilà ma ngoog aywa très bien mbokk yi gis ngeen ni merguez yi tiit nañu voilà gis ngeen ko nii jël ndànk soble ne ci voilà maintenant on ajoute les oignons voilà oh, très bien machallah vous voyez maintenant on ajoute la sauce de la tomate comme ça et on met la pâte de poivre, euh, comment on appelle ça, de euh, poivron, pâte de piment ou sweet pepper, piment végétarien. Et on assaisonne avec un peu de poivre et du sel. Pas beaucoup de sel. Hein? beaucoup les léegi gis ngeen def nañ suñu tamaate suñu tuuti xorom épices ñu njoos fii tuuti bàyyi ko mu jógaale ci suñu coriandre bi gis ngeen ko noonu foofoo ngay toj voilà léegi ñu bàyyi lii ñor lii ñam bu gaaw la yee ñamu 25 minutes 30 minutes nga jóge fa foofa daal di toj eh, très bien macha allah mbokk yi mi ngi ni pare na c'est prêt aussi léegi ñu ñëw dressé suñu assiette très bien eh, mbokk yi très bien macha allah très bien <laughs> mbokk yi foofoo ngay toj macha allah gis ngeen suñu sauté de merguez a ngi may nañ ko suñuy frite <laughs> gis ngeen ne mburu moo namee ngay ci ruq ba daal di jël may mun a nees bi ne ko tay ci digg bi daal di ko fase suñu kanam léegi nag xoola suñu wax du ci bari dañuy jël ndànk ni suñu persil yi ñu aché woon rek euh, coriandre ba ne ko ci tuuti les petits mbicc rek dégg nga maam foofu daal di kifin très bien macha allah mbokk yi di wax na tey jii incha allah suñu sauté de merguez bi euh, gis ngeen ko dañ cee euh, fas yéene yekkal ah suñu soxna su baax a baax a baax a baax macha allah muy suñu sista Faboy Niang koo kookoy cher oustaz Bachir Bachir Ba di leen wax ne yéen moom li yeeg njaboot gi di leen ñaan ngeen jottali ko mbokk yëpp ñu tàkkamtiku ci ma ngoog su ko defee foofa daal di toj comme ni ma ko baaxoo di waxee ma ngay wëndeelu mbay mbay de